Pastef parce que tey euh, gis nañu ñenn ñi commencé nañ def ay sorties euh, di critiquer ñenn ñi kenn mënatu leen jot am na ci kàddu yoo xamante ni jot na génn tey ku bokk biir Pastef am fa yenn taxawaay yi su génnee waxee noonu c'est parce que y problème dem na ba ne Ousseynou li ak El Malick kenn mënatu leen jot dem na sax ba jaar ci beneen kàddu ne waaw jigéen ñee leen di jot ainsi de suite te tey ku xam Pastef xam ne dañu mës a suudewu dañu mës a ànd donc mu mel ni problème nomination bi dafa duggaat ba laal li nga xamante ni moom mooy Pastef interne bi. au contraire bu leen jël cas isolé attee ko majorité. c'est pas le cas c'est juste je donne un exemple. exemple voilà. man damaa bokk Pastef bokk ci cadre yi tu vois. Mhm. Pastef man gisuma fa frustration bu tax ñu teg loxo ni li frustration la ci nomination yi xam nga lu tax. Mhm. ñun déjà on a à l'esprit que daray mérite amu fi lépp lu ñuy def on doit le faire parce que maanaam am na benn engagement patriotique de don de bu ñu war a def ça c'est deuxièmement yaa ngi tudd léegi un exemple mhm. je peux citer son nom Imam Dramé qui est un ami mhm. ki di kenn koo xam ne jàmbaar la wax dëgg yàlla ci Pastef xeex na ci lu ne wax dëgg yàlla parolam yooyu man du ma ko commentaire xam nga tax mhm. parce que gis-gisam la waaye man lii sama gis-gis man. Mhm. moo man Ousseynou li maa ngi koy woo di ko jot dans le cadre du travail. ok dans le cadre du travail Ousseynou lii maa ngi koy woo di ko jot. y' a même pas deux heures de temps on s'est wax nañu El Malick Ndiaye maa ngi koy woo man di ko jot dans le cadre du travail Moussa Bassere maa ngi koy woo di ko jot amul benn ministre boo xam ne du la woo bañ la jot parce que c' est dans le cadre du travail. Mhm. mais est-ce que kon mais ministre yi nga xam ne amul seen biir non amul benn problème de communication ñun am Pastef amuñu problème de communication on communique bien tu vois. Mhm. moo tax ma leen ne cas isolé boobu boo ko jëlee nga jàpp ne noonu la mel demeewul noonu man de wax dëgg yàlla ministre yëpp amul kenn ku ma ci woote du ma la jot xam nga lu tax. Mhm. woowu ne ndax man mais c'est parce que c'est dans le cadre du travail. Mhm. liggéey bi ñuy def ñu ngi jokkoo ak ñoom ñu ngi ñuy wuyu ñu ngi woo. ñu ngi ñuy message ñu ngi ñuy bind parce que liggéey bi la waxu woowuñu fi kenn ne ko maa ngi ñëw sa bureau. Mhm. woowuñu fi kenn naan ko jox ñu léegi nangam ak sangam si dans le cadre du travail bu ñu leen woowee saa su ne dans le cadre du travail ils nous répondent. Mhm. ku ci gis appel en absence man personnellement da nga may rappeler. Mhm. ku ci gis sama message personnellement da may tontu ku ci gis sama mail automatiquement da ngay répondre. xam lu tax. Mhm. parce que c'est dans le cadre du travail soxlawuma leen ñoom ci leneen lu dul cadre du travail. Mhm. maintenant bu génnee cadre du travail nag su boobaa nit ki sañ naa doxee nu ko neex. d'accord waaye tey jii ma jàpp ne aussi dañoo nekk ci mois boo xam ne wax dëgg yàlla nit ki sax nag mënoo koo dénk ba pare bëgg di mu lay wuy saa su ne mi ngi mel ni tey ma jox la sama dépense. Mhm. nga dem marché teg diwlin ju saas mu leeral na ni diwlin ji saas na waxtu wu man la kaay ndox ma naan. maa ngi lay woo nangam ak sàngam su yàggee finalement la ngay saaf sa xëm donc ñun on a compris Pastef dañoo libéré ministre yi ñun amuñu benn problème suñu biir libéré nañ leen ñoom ñëpp ku ci nekk yaa nga ca la nga war a nekk te maa lay xamal leen. Mm-hmm. ils sont braves ces ministres là man dama ci ànd ak dama ci xam ñoo xam ne 23 heures la ñuy génn seen bureau je parle de Ousseynou Ly Ousseynou Ly quitte dans so day 23 heures lay génn bureau lii kenn man du ma ko nettali tu vois donc y a de ces choses c' est, c' est pas pour prendre sa défense parce que nekk nu ci ci boobu. Mm-hmm. mais nous sommes des sénégalais ñu nekk ci parti bi on doit aussi tamit wax nit ñi li nga xam ne aussi mooy ne xew. Mm-hmm. imaam nag jàmbaar la wax dëgg yàlla ku baax la. Mm-hmm. comprendre nga mais loolu peut-être. ci côté am la mais man du sama côté donc man li ma mën a wax mooy constat général bi nga xam ne ñun ñuy liggéey laay wax de. ñun ñuy liggéey nekk ci de façon officielle di liggéey ministre bu bind nga tontu ñu. wax dëgg yàlla c'est parce que daal c'est dans le cadre du travail mais hors travail du ñu sax woo benn ministre parce que soxlawuñ ko personnellement. d'accord alors c'est important euh, euh, ma bëgg ñu dugg feneen euh, Khadim. Mhm. muy wàllum DPG bi parce que peut-être DPG bi bokk na ci li tax sax peut-être ñenn ñi xamaguñu exactement fan la régime bi jëm tey assemblée jot nañu réunir di waxtaan pour trouver consensus. jéem a régler li nga xam ne moom mooy règlement intérieur bi. Mm-hmm. Euh, comme comme comme ça premier ministre mën a ñëw mais tey ñàkk defagum DPG bi nga xam ne defagum leen ko est-ce que du loolu moo tax peut-être sénégalais yi euh, comprendre ñu exactement régime bi si sur quel pied danser ci lañ jëm. parce que on a l'impression que ni mbir yi dafa taxaw si lu bari même ci wàllu reddition des comptes beeg yooyu yëpp gis nañ ni affaire yi hmm. dafay traîner sur sur surtout tous les côtés hmm. donc est-ce que aussi waruñu waroo leen xool naka ngeen di defaree loolu bu ko defee sénégalais xam ci yan orientation ngeen jëm ak régime bi euh, fan la jëm ak sénégalais yi waaw loolu moom ñu ngi ci logique bi xam nga damay joxe exemple président Ousmane premier ministre Ousmane Sonko. Hmm? Mhm. ak DPG bi exemple boobu li tax ma koy faral di joxe mooy sénégalais dañ ciy teel a comprendre xam nga mooy lan. Mhm. ci DPG bi ak assemblée nationale. dafa ne man jàpp naa ba pare mooy man def naa sama DPG ba pare waaye jumaa ji duma ci julli ndax jubluwul xibla maanaam jubluwul penku bu ngeen bëggee ma julli ci jubbantil leen ko jublu penku alhamdulilah nag ba jumaa ji député yi nga xam ne ñoo ngi fa. te réglement intérieur bi nii ñu ngi tërën ci soppi bu ñu ko soppee rek le premier ministre Ousmane Sonko dem def DPG xam nga tax. Mhm. parce que loo xam ne la maanaam assemblée nationale pratiquement moom moo ko moo moo moo moo ko régir wax loi mais DPG. mbir ma loo xam ne c' est constitutionnel dans la, euh, la constitution dans son article 55 moo ko wax. Mhm. mais boo ñëwee ci règlement intérieur assemblée nationale. dans les articles 97 18 98 et 99 ñoom ñoo fixé date ñoom ñoo fixé maanaam defin bi ak format bi. Mhm. loolu leer na beneen bi nga xam ne aussi mat naa wax mooy le premier ministre Ousmane Sonko ba muy tontu euh, Guy Marius Sagna honorable daf ko ne man sama DPG pare na bu yàgg gis nga ma wax la dara lan la. Mhm. au delà de euh, de la déclaration de politique général xam nga document la. Mhm. am na document bu ko gën a taxaw bu génn. boo xam ne pare na xam nga mooy lan mooy la stratégie de transformation systémique du Sénégal. 2024 2025 2029 ñu gën ko xam ci ST 2S 20 24 29. pare na ministère du plan moom moo ko produire avec l'ensemble de données sectorielles yi nga xam ne wax nañ ci fan lañ bëgg a dem fii ak 2029 suñu orientation fii ak 2029 suñu axe prioritaire fii ak 2029 lan ak lan la ñuy indil sénégal yi document boobu dafa pare ba taxaw. document boobu nag moom la gars yi président Ousmane Sonko fële wax gars amuñu projet. ak kañ ñoo am projet mais xam nga euh, su peut-être souveraineté bi yéen a ngi koy wax mais euh, déggatuñu ñu wax ci kaaw français fab est-ce que du silence boobu aussi moom moo tax nit ñi xaw a jàpp ne peut-être mbir yi dafa tàggatémbe. ma ñëwaat ba tey ci suñu projet bi ñu koy bind dafa am lii ñu tuddee les délais de réalisation des mesures clés. ok mooy lan mooy lu ci ne dañ naan waxtu wi lañ koy def maanaam ci waxtu wi lañ ko bëgg a def jem m'explique. Mhm. wax naa la sànq bi ñu waxee lépp lu jëm ci administration ci deux ans. Mhm. damay sore ak yow lépp loo xam dafa jëm ci wàllu justice moo xam lu jëm ci wàllu maanaam insertion ak loolu mais c'est de un à trois ans loolu si clair nit ñi xam nañ ko boo ubbee suñu projet ci laa xamee ni ndekete subhanallah mhm. la. gars yi duñu liir moo tax sénégalais. loo ko non non gars non non dama xamul tax xamul tax. maanaam ñun loo ñu bëgg na bi def ko ci livre duñ ko gis il préfère récupérer l'information gauche droite ngir mën a ñëw ngir wax ak loolu donc loolu du information boo xam ne information bu bu capital la maintenant en terme de souveraineté monétaire ñun li ñu ci wax c'est clair et net dañ ne ñun délai de faisabilité bi maanaam réalisation bi ñu ngi ko jàpp entre un par exemple ci biir quinquennat bi lañ koy def. Mhm. mais loolu c'est clair est-ce que tey le débat monnaie. Mhm. dafa urgent. de tell sorte que ñu war ko teg ci table ji or que au même moment on l'inondation mm-hmm. on a de vie bu seer bi on a l'immigration irrégulière bi mm-hmm. parce que depuis le le processus de Rabat et le processus de Khartoum mm-hmm. et le Global Pact Migration de on parle d'immigration clandestine on parle d'immigration irrégulière vous dire que. mais ñu ngi intercepter ay ay. merci gaal ba tey mais mais pour vous dire que pour vous dire que. Mm-hmm. y a de ces de ces de ces de ces de ces sujets ñun on se on gis nga boo ñëwee ci kër. Mm-hmm. yaa ngi may dégg. Mm-hmm. kër gi di seet senn ardoise est-ce que da ngay taxaw naan non non xaaral branché branché ma télé bi da ngay xool nooy fàttee paxu paxu ardoise yi. foofu lañ toll. dañoo nekk di réajuster li nga xam ne par exemple ñun tey effectivement moom mooy suñu politique solo ko mbubbu état ngir mu mën a dox. Mm-hmm. parce que le projet référentiel politique la. Mm-hmm. boo xam ne ñun ñoo xalaat tëgg ko bind ko waaye nag il faut ñu xam ne gannaaw xalaat bi dañ koy solal ay yére état. d'accord maanaam li nga xam ne wax nañ ko si souveraineté économique. Mm-hmm. mais dañuy am ministère boo xam ne y aura des fonctionnaires ñu xool naka lañ koy disperser ba noonu finalement bu ñu ko jëlee ñu mën a indi ce qu'on appelle l'applicabilité donc il faut nit ñi wax dëgg yàlla débat bi gën a yéeg li tax débat bi di gën a yéeg soxna lan la mooy il faut que nit ñi nangoo lire bu ñu liirul li nga xam ni un livre de deux cent soixante treize pages leer na ma ne am na ñoo xam ne liiruñu sax préface bi <laughs> mais fu ñu toll xam nga lu ñuy wax amuñu projet et pourtant on a un projet boo am une vision am cinq axes xam nga la mooy cinq axes yi. Mm-hmm. renouveau des institutions engagement africain. Mm-hmm. deuxième axe bi moom mooy euh, économie endogène souveraineté alimentaire. Mm-hmm. troisième axe bi mooy capital humain cadre de vie. quatrième axe bi mooy innovation technologie cinquième axe bi mooy sécurité national et rayonnement international mais xanaa lii nag yaay booy leer na mais malheureusement du ñu lire ba pare ñoom ñoo occupé plateau yi bëgg a wax moo tax ñu li ñuy ñaan mooy képp ku bëgg wax ñëwal ñu nga lire. wala boo mënul liir nga wax ñu liiral la. ah xëy na peut-être ñoom ñi di wax aussi li ñuy wax dafa am fu ñu ko teg. non nee naa la man maa la wax sànq ne fu ñu ko mën a teg yàlla xam na ne bu fekkee ci ci silaay bi. Mhm. tegu na ci xam-xam Pastef nangu ko xamuñu lan lañ mënta nangu. Mhm. amoo xam-xam nanguwoo gëstu taxawoo sax ci yoonu gëstu waaye tu es accessible li nga xam ne mooy les médias et tu ba pare ngay wax mais bañu ñu ko wax mais xam luñ bëgg. mais sëñ soxna si koy wax waxal xam-xam mais dañoo mën a nekk 60 ans xeetu politique bi ñuy wax xaxarante xastante mais loolu mënatul sax Sénégal dafa génn ci benn tournant di dugg ci beneen tournant olof rek day wax ne diggante sol yére ak sumu yére yaramu neen faaw mu jaar ci te corandaire mën na cee. Ah, mais est-ce que nekkul tamit loo loolu ngeen woote woon moo tax gaa yi fekk. non non xam nga lu ñu woote ñun dañ ne bëreet bind livre da nga ko mës a gis indi livre solution 2000 2000 2017 16 gars yi indil ñu ay salafiste ngeen. ay jihadiste ba tey déggoo débat de ñu doxalaat ñu beneen livre ci pétrole ñu indi lu Adji Sarr donc ñun bëgg nañu tekki suñu ay jéngi waaye malheureusement ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ñoo amul niveau bi te bu ñu amul niveau soxla si day metti gis nga affaire Ahmed Suzanne Camara yëpp loolu la parce que ñun fi ñu bëgg a dem wax dëgg yàlla dañoo soxla génn dañoo soxla déployer xam-xam dañoo soxla sénégalais yi nekk ci beneen rythme au moment pareil bi ma la aux États-Unis ñi ngi wax ci leneen boo demee Chine ñi ngi wax ci leneen waaye ñun Sénégal xam nga fan la ñu tënk ay diw lii diw laa ay suite beauté et cetera te ñun Pastef ce que li ñu bind mooy ak indi ko mooy rupture systémique rupture systémique boobu nag transformation la en profondeur ci bépp côté waaye côté bi njëkk xam nga mooy lan. Mhm. mooy le débat public. d'accord mais ñu ñëw nan leen woo grand théâtre ñu toog. nañu dem feneen ak feneen ñu toog ñu indi suñu ay livre même bu ñu indi livre ñoom ñu bind ñëw toog ñu xaatabante yàlla xam na ne bu ñu mënee ci xam-xam billaahi barke alxuraan ñu jox leen loxo waaye nag bu fekkee ni ci polémique rek lañ ko bëgg a teg d'accord Khadim alors euh, fi ma bëgg ñu dugg fa très rapidement